li bi ñu ngi lay ziar. waaw lan la ngi lay fay di la bu baax di la ziar tamit. Mhm. tey jii nooy dundee bis bi daaw nga teewoon si ñu décoré la woon si nga bokkoon si les meilleurs ñi nga xam ne ñoo eh, yaa jiite woon équipe bu Thiès bi ren ji tamit saison bi gàtt na lool donte drapeau chef de l'état amul mais tey en tant que membre Ahlou Lamb Sénégal ndax ah, Libidor gis nañ si champion yëpp booy xool moom moo si gën a fës si Ahlou Lamb Sénégal chaque jour mu ngi si biir groupe bi di waxtaan ak gaay nan lay gisee Ahlou Lamb Sénégal ak lan la siy yëg. damay sant yàlla bu baax. ndax foog naa ni tamit euh, daaw def nañ ko fekk ko ren daal parce que am na ñoo xamante ni daaw ren fekku leen fi ñi ñaan woy dawlu yëpp di ñaanal yàlla na yàlla xaar àjjana ñi làqu si mbëkk meeg fépp. parce que tamit euh, ñun ay jaam la rek te dee moom mën naa ni euh, day bett daal moo tax comme que yàlla may na ñu fekk ko dañ koy santawaat yàlla bu baax a baax a baax baax de xam ni tamit feet gi moom suñu feet la parce que ñun biir axlu làmb Sénégal lañ bokk. mu nekk groupe bu ñu xamante ne nii bu neex la bu ñuy tiitaroo bu ñuy sagoo parce que foog naa ne fu fépp fépp fu ñu toog ma jaa tim ñu rek dina lancé euh, dina lancé tur noonu ci xelu làmb Sénégal waaw. tey jii nii ñuy décorer ñoo xam ne nii say ñii say rakk lañ ñii say xarit lañ ah, yëpp jii nii xelu làmb Sénégal di décorer ñoo ñi nga xam ne les meilleurs ndax Libidor tey jii nii yi ni ñu leen di décorer nii ndax mu ngi séntu moom te Sénégal décorer ko moom individuellement. waaw loolu euh, maa ngi koy bu baax a baax a baax wante nag euh, avant tout tamit gars yi dañ leen bu baax parce que tamit làmb ji ku ne xam na ne eggul euh, corona bi moo tax ñu dagg ñun tamit suñ tardement dafa bari si làmb te bi nu ubbee tamit yàggul ñu tëj làmb ji daal waane tamit ñoom li nekkuñu fi xam nga ñeneen ñeneen bu fekkee am na ñeneen tamit ñun ñoo xamante ni ñu leen di euh, décorer ren kon làmbu Sénégal gars ñu si gën a gis seen bopp di ñaaxaat yeneen booy suuf rek ñu xam ne làmb ji kenn moomu ko li ci nekk yëpp mooy maanaam liggéey travail daal xam nga pour maanaam mën a jot sa sak si làmb ñun nag ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax pour mën a pare saison bi bu démarré pour mën a maanaam déwén ñu dégguñu sa kaw daal te am nañ yaqin boobu am nañ bëre boobu am nañ jom bopp c'est làmb amul luñ ci deful parce que fépp fuy gëwu làmb fii nii mooy raison rek li bi sëgg na fa jël fa làmb kon daal di gëñal waajaal suba te xam ne ay xale yu ndaw lan xale yu ndaw lan te incha allah 2023 bi yàlla na si yàlla yóbbu si jàmm rek lam làmb yi démarré incha allah lépp dina leer. li bi instant pare na bu làmb tëjee woon tey tey tey ñu ne fii am na làmb mu dem bëri. man pare naa barke alxuraanu karim parce que ñun duñ toog ñun ñun chaque jour ñu ngi si nekk li war a nekk xam nga di entraîner di contact tey léegi nii nii nii bu làmb amoon. pare naa pour dem bëre daal pare naa pour bëre daal waaw. tey ji combat dóor yi fan ak ak ak Libidor ba xam gaa yaa ngi koy woo pour demander ko ay combat wala ni waaw combat dóor moom maa ngi déglu parce que tamit euh, lamb ji eggul combat yi yàqu woon dafa bari aussi adversaire tamit ñu ngi am combat. waaye ñu ñun te ñun war bëri dëgg dëgg dëgg dafa bëri ñoo xamante ne nii dafa am combat quoi il faut que du mën a ñàkk ñu toog xaar bu saison tuuti ñu mën a ñoo ñu bëri ñu mën a am ñu libéré wu ñu mën a ñu mën a ñu mën a jël ñeneen ñi quoi pour bëri ak ñoom seen xaar sa normalement foog moom daal loolu moo tax wante ñu ngi nii woo ñu ngi kontaan wante incha allah comme que bëree woon na si bi yàlla def sa fan bi dañuy waajalaat suñu bopp bu ñuy ñëw daal fexe ñëw ndam daal incha allah waaw.